jërëjëf mbokk yi ñu suivre ci Equivox mbokk yi ñu ngi leen di bëgg di leen char di leen toppal nag tey nag mu duxule dama ñëw ci benn dëkk boo xam ne goxu làmb la seet si fi ay du ma leen wax kan la da may topp rek ñu dugg ci biir maa ngi ci dëkk bi nga xamante ni fii mooy dëkk Landing Diamé bi dëkk Matar Gueye bi Anta ñoom Cheikh Niang ambulance bu Thiès waaye topp ma moo xoon na invité bi topp ma ñuy wax ak moom dinañ waxtaan moom si làmb dañ ko gëjoon gis nama ko bi mu fi mujj dafa demoon Ibou Mar moo wuli deux ndeysaan daal di am defet waaye dina waxtaan ak ci loolu waxtaan ak moom ci adversaire yi am na yëpp maa ngi ci dëkk bu mag bi Thiès kaay ma ñu dem accident fii nag ci Thiès fekk si ndaanaan bu mag bi champion bu mag bi wax naa la bi mu fi mujj Ibou maar Diop la duggoon moog wuli deux dina waxtaan ak moom ci loolu waxtaan moom ci carrière bi ndax ñu ngi soog a jàkkaarloo ak moom lu waral ambulance ñu gëj koo gis mu def année balance làmb ji amoon crise amoon ci làmb ji waaw yaa ma gën a xam feebar bi ñëw loolu lépp moo tax mais ginnaaw loolu champion bu mag bi ambulance Matar Mbaye sax su ma neexee. ginnaaw bi sant yàlla julli si yonte bi sant suñu ñaar waajur dañuy sant waa Thiès gi yëpp waaw di nuyu gars yi nga xam ñëw fi ñoom ñëpp ay ku toll ni Pambay. ginaar yu ceeb gi neex na macha <laughs> sama gars yi ñoom xaar yi mag. lu waral ambulance ambulance pour ambulance ambulance ci làmb da bëgg làmb wala. amoor moo la ci dugal wala da nga ko doon. non gëm sama bopp moo ma dugal si làmb. kon amoo benn mbokk buy bëre. waaw am naa mbokk muy tubaab joor. mel ni ma yàlla na ko yàlla yërëm. waaw sama mbokk la. lu ngeen bokk. waaw moom sama papa ñoo bokk ndey bàyyi. kon kay da ngaa doon mbër bi. waaw dama ko xaw doon foofu tuuti. am turu ambulance fu mu jógee. ambulance fii sam benn paar rek moo ma ko jox mu ne ma da ngay changer sa tur bi tudd tudd ambulance. ah tudd woon ambulance. non tudd ma woon ambulance. noo tudd. man <laughs> Missane 2 laa tuddoon. mu ñëw jox ma turu ambulance ma jël ko nag waaw si laa jógee turu ambulance boobu jël ko di si bëre ba yàlla egsi ma fii ba ñëpp xam ma si loolu. da ngaa jaar wala da ñëw rek dugg arène. non si mbapat. loo ci def. jël naa jël naa trophée ma neex kay si mbapat. Ah billaahi. ban mbër daan si mbapat ku làmb ku làmb xam waaw xamuñu bi ñuy bëre mbapat boobu gars yi génnuñu. yaa ngi dégg mbapat bi yi lañ si lañ soog a xam ni mbapat nii nii compétir la moo tax ñuy soog a daw si mbapat mi. mais bi ñuy daan fii bi ñuy bi ma bëri fii mbapat boobu samay morom laa doon bëral fii. kon su ma la déggee daal kon koo xam ne yaa ngi gis ci arène bi sax muy. bari na. Euh, daan naa Missa Faye Missane daan naa ko fii man na faal moom rek laa xam parce que moom moo génnoon ñëw fii. léegi nag nga jógee foofu nag mbàccal mbàccum gerte bi kañ nga ci dugg. mbàccum gerte bi waaw dañ maa gis si mbapat rek may mbapat rek ñu ne ma war ngaa mën a bëri bëri dóor si lañ ma dugal. sama premier combat bi may dugg boobu maa ngi doon xale bu ndaw ñu jox ma benn mbër benn mbër bu nekk muusante muy Joal si laa duggee si mbappatu bëre si bëre dóor bi. léegi nga daan wala da la daanu damaa daan. premier combat da nga daan. waaw. deuxième bi nga am kan. deuxième bi ma am douze sept. douze sept moom xam naa ko moom saraan naa ko. waaw. nga daan ma daan ko. jóge fa. ma bëre fa. Sankos. Sonkoos dégg naa ko ndaanaan la nga daan ko. daan ko. dégg la ma jël ma ñëw jël building. eh non defal ndànk ba nga ñëwee Dakar Dakar luur nga fa dajal. waaw première sortie building la. non luur moo njëkk building. non non <laughs> building moo njëkk. man man ci luur laa la commencé seetaan. Demba Diop boobu nag xam naa boobu nag maa xamagul moo tax. Demba Diop après ak kii bébé Balla. Dakar tegle 3 victoires. waaw 3 V laa tegle. ñu naan ah xale Thiès ambulance ambulance. <laughs> ñëw Thiès. ma ñëwaat ah, Thiès nga ñëwaat fii sa dëkk. waaw Ousa Sow. ja Ousa fii ah, bëri moom daan ko. Ousa moom dégg naa moom yaakaar naa très sedd nga doon wër. ba daanee la bàyyi làmb ji. <laughs> moom très sedd la nag. kon ah, kon Ousmane Diop kon très sedd la bu ma ko daanee. lamb boo xasee ba takk ngeem ba ni lamb. Ousa nag bi mu bëri yow parce que waaw mais ci yéen ñaar yéen a ko mujjee daal mu dem France. waaw loolu mën na ne. waaw après si laa jël jël ngeer. ah da ngaa recevoir Thiès ba waaw jël naa ngeer sax daan ko fi bëri fi Ousmane Diop daan ko. dégg naa sax ñu ne Eumeu moo ko indi waaw moo boobu moom moo ko indi bu baax parce que boobu moom maa ngi koy remplir si laa bëri ngeer bu sax jël tey la nekkoon nga daan ko. waaw yow ku ku bëreeg mais bu ñu jamono yooyu ay 2006 boobu dugg ko si làmb ji. waaw noonu la ñuy ñaan parce que ñun dañuy ñaan suñu raq yi fekkente ñu fekkente ñun suñu kaw ñu may leen suñu sens. loolu la demee rek dañ ñoo may sens si kaw ñu ñu ñu bunt bunt bi jàll. si laa ko daanee jël. Euh, armée non non. yaa ngi fàtte ko Mbaye Bal Pam Mbaye wax la ko te nga Pape ñëwal <laughs> euh, caat première défaite ba Iba Mar <laughs> waaw caat laa jël ñëw nee mu xam la bu baax ñëw ba fii Thiès. ngeen bëre mu jàpp la daan la première défaite nga dund ko lan. waa non lamb la rek parce que dama daan daan samay morom. laa man daan la rek. non man ma daan boo xoolee seetaan nga combat bi yow. maa nga woon Ibama. waaw seetaan nga mbër mi nga mën da koy duma daan ko. nu la def. nan lañ def dañoo xeex si kaw ma daw fàqat ko. mu rëpp jóg ma taw di ko tëgg mboot. mu jéggi mboot ma laali waaw. da moom daan lay mbot. waaw <laughs> dégg nga lu ma mbootuma sax. nu mu la ma teg rek loolu du mënel <laughs> non du question manin sa tànk boo xasee ba yëkkati boo laalee boo tegee mboot ba pare doo xam nga da ngay desi ak liitu bi doo too desee dara yaa ngi dégg bu la laalee foofu bu fekkee amoo pied d'appui da dem. mooy boobu xale man xale bu ndaw laa. nga ma liggéey ba dab ko foofu. loolu sant yàlla la non méttiwu ma loolu dafa war a am day am. nga jóge fa. ma jóge fa si la si la ma joxee armée. nga tegalee ba ah man defar boobu dama koy bañ ba léegi. waaw dégg nga ah, na dem mun na génn. bu ko sa protestant mu war la am sa protestant. non loolu amul. moo ko wax <laughs> loolu amul. waaw yow mbër noonu moom nan la mën a gisee naan ay ay ay dama yàbbi sama protestant ah. loolu la ko mën a ne. yéen doon moo ko wax. waaw loolu mënut ne ci laa ko ba tànk bi du métti. tànk waaw boo xoolee tànk bi da koy mel ni lu koy delloowaat boobu mënu yëngal man xam naa ne sax mënu yëngal amul benn champion booy jox avance ambulance wala bu Modou Anta ni ko fekk si ko Thiès boo gisee ñuy jafe bëri loolu la de bu ñuy ñëw Dakar dañ koy miine ñoom xanaa kon. de ah déedéet ñun mus fi ñëw ñu humilier la du ma daan la. ñoom ñëpp ci yem. koo demal nga seeti leen ay adversaire u mataale nga fa koo ci jox avance am ni ko Thiès bu subaa mu gàntu dinaa ñëw am nañu bari ñoo xam ne nangu leen fekk si fi mu yéen a bëgg yéen a bëggul bëri nag mali la koo ñu fi indil man maa ngi nii maay wax maay kilifaam maay magam may léppam. pour benn defet la am. bu amee benn defet kan ak la daan. bëri na ay lu ma dix combat. ay champion ñun dix huit combat lañ bëri. xoolal sunu làmb démb. maa ngi ñëwaat ci yow. dix huit combat waaw. trois defet rek laa si am. non trois defet kan ak kan la quatre defet nga am la gaa. man nangu ma mën a armé dama am. defet nag seen seen nag mooy joxe mooy joxe ndam jox na ko. mais nangu ma da ngay dégg léegi xam nga lan la. da ngay bi léegi. dégg lu ma wax nañ ko leeralaat non instant yii nee léegi xoolatu la léegi foog la la jël. yow yow Armé mu ngi jógee si defet caata ko daan waaw la daan noonu mu ngi noonu. <laughs> nga ne da nga tëddoon feebar. damaa tëddoon feebar tuba si ba léegi ma semaine bi nga fekk ma tàmbali entraîné. Ah yàlla xam na laaj ñi wóor na yàlla bi ñuy wax combat boobu Pambay xam nañ moom du jël combat bi parce que xam na ni boobu man nekkuma si dara damaa tëdd feebar. léegi tane bu baax. waaw tane naa fu mu ne nii maa ngi sant yàlla. waaye tàmbali naa samay entraîné maa ngi si. avancé nga bañoon kon bu ñëwee nga jël. non xale yi nag. Bambaye ngi fi man ku ñu ma kooku rek kooku la. déggoo man lay défendre man amul lu may amul lu may bañ amul lu may damay damay liggéey. Jackson moom jël na naaru sokaas bi sax bàyyi na la fi. waaw bu jógee ci naaru sokaas na la loolu la ma wax de. gis naa ko démb rek. waaw baax na na daan naaru sokaas pare. ah nee ma da daan ñëw duuma waaw yàlla baax na na yàlla na si génn ak jàmm ak salaam dina mu fekk si kàttan yàlla balaa boobu man dina am combat Ousseyn ku lay wax. man xam nga mbëri boo leen cité dañuy nekk fii naan danga maa njëkk a jugal wala lii ak lii. amu ci barki Serigne Saliou loolu la wax. comme que ci defar nga jógoom lu nooy ngay wër moom dégg yàlla la lay tànn yàlla xam na ni samay combat yëpp amul benn bu nooy. damaa rampé bi may doon booy ba léegi samay mo ñu ma ëpp ñu ma mag lañ may jox yàlla xam na loolu damaa rampé diggante bi ma rampé ak diggante bi ma bëree arène boo dee xool matul dara. samay morom dama accéléré yàlla yàllaa def loolu looloo tax nag ñu xam ma mais du question naw sama bopp wala dara wala ma jox sama bopp dara déedéet gars yi ñoo xam ne carrément kii li muy bëgg def na ko ñu ànd ak man. sa diggante ak Wouly 2. bi muy jël combat bi dañ koo paasal mu dem états uni liggéey waaw ñun kenn paasaluñu ñun suñu moyen bopp lañ doon demee. fekk naa la euh, fekk naa la ba nga ne ma dafa États-Unis dafa nekkoon doon jaay entraîné wut. dëgg la. yaa ma ko wax ci signature bu baax bu baax yàlla xam na ne man bu ma demoon États-Unis su ma ñëwee duñ ma sax xool si naan ay catégorie gi loolu de bu ñu dee États-Unis ba ñëw ma. moom nan nan lañ demee. booy ñeme dëgg la loolu la. waaw ku ku daan duñ la ñeme parce que lii lii nii lii nii daf maa tax ma jàngat lu bari si ngi dégg. su ma naagu amu ci yaa man bi nga ñëwee. sa naagu du ma mës a naagu làmb ak la muy laaj si ngi dégg indi na ñëw naa indi lu ma war a indi samay mbokk ñëw nañ ñëpp gunge nañ ma. dem naa foofu mais yàlla joxe ndam du man maay may sama bopp li ma war a def def naa ko maa ngi siy dégg nag kii daa gaaw a xoox wala kii daa dégg physique moom defoo ko moom. waay yow dem ba jeexal tàkk. physique du ma kon sama yaram fan laa ko jëlee. Ah, ay nga yëkkat la gars ban weñ bëri Thiès ay weñ rek. yow ban weñ man naturel laa mel nii sama papa nii la mel naturel sama rakk nii lañ mal naturel boo si gisee kenn da nga naan kii day laal weñ wala déet mais boo leen xoolee càq day laal ñu dara. sama rakk boo ko gisee fan yi mu ngi entraîné boo xoolee da nga naan kii day laal weñ. mais wala deux mu daan ambulance logique na xel xel xel nangu na ko champion la. waaw dëgg la yoon man yoon la ma daan ko. sëñ dégg mais yàlla moom la jox victoire moom la xoon ni moom may daan mënu ma si dara jël boobu na ñu wuli de daan ma lu ne maa ngi koy dégg. waaw foogeewu ma ko sax yàlla xam na foogeewu ma jël bi. Thiès gunge la Moodu entre indi la laay goote ku ne indi. waaw non làmb la rek fii la mu ne la ñuy gunge. mbër mu ne la si wulli teen fa la ñuy des. <laughs> waa jeex na. <laughs> léegi léegi nag démb man doon am na émission bu doon déglu ma dégg kéwél Sir Diakhar ne bu ngeen bëggee bu ngeen laajee lu raisonnable mu tëgg ko fii cees kéwél rak rak wulli dë la da ngay delluwaat Bawol ñeme nga delluwaat Bawol yow. kooku xale la. kéwél lu ko def xale. xamul tax na jaar fi ma jaar a pare ba egg si magam bu jaaree foofu. man ñeme naa koo jël amul lu may tiit. ah démb de bi ko dégloo moom ñi mu cité moom ci la la boole yow. waaw yow promoteur ne la pare na. dégg li bi lu ko neex rek lu ko lu ko arrangé rek lay xool. Ah. barke yàlla. yaa ngi lo sigul. de waaye lo sigul samay moroom ñu ngi fi nañ ma jox samay moroom ma bëreeg ñoom. da da nga ragal dugal bawal. ma lu may tiit bawal su ma fa moom ñàkk faa ba ñoo dugg lépp. aw ma lu may tiit si làmb dégg lu ma làmb ku ma booleel ma bëreeg moom. Kéwel làmb boole leen. non làmb làmb boolewuñu. Kéwel 14 combats la am comme yow. palmarès bi neexoon na 4 défaites la am nga am 3 ci li nga wax 4 nga am sax mais bañ nga benn. <laughs> nga ne quatorze combat la am. man dix huit défaite dix huit kii victoire laa am. dix huit combat la am da am dix huit défaite. moom moom quatorze waaw na rempe na ñëw. trois na bëre pare rek. na jël ay moroomam man dew ma fenn làmb ji ku nekk wëlum teen la kon ni nga ko waxee rek. voilà kenn dawul daayul maa ngi mu ngi fi ah. yàlla def lu xam loolu la def. léegi kon daal su ma déggee Kewel moom xooloo ko. xooluma ko de xooluma ko de. te fi mujj li la métti Bawol waa Bawol la ko teg nga bañ faa dugal. te la xamal benn affaire. loo may xamal ñu naan ma damaa war a bëri si waat man Ndakaaru laa bëgg bëriwaat. Ndakaaru day métti si yow de. neex la bëri laa bëgg. trois am. yàlla xam na ne laa bëgg man loolu laa bëgg man. mais gars yi ne Dakar jigu ah, kon lu tax ma doon daan ni trois nga fa am nee ñu ngi fa daan. trois victoire trois la la défaite la fa am. quatre défaite nga fa am. bal bal bal défaite CNG CNG nan la woo de. waay nañ ma nañ ma woo. drapeau ba delloo nga ko. ñaari benn bras dama ne deux mois. waaye ma nga benn bras. waaw deux mois xaw man ah. ba tey jii. ku daal leen bëgg ngeen leeral. ah moo ñu gënaloon mais comme am na. am na combat yàlla na am ndam. waaw yàlla na am ki ko yor di Abdou Lahad sama Abdoulaye Ndiaye sama jar Abdoulaye Sène laat ah, xartu yaay ja tax na wax dëgg yàlla dama koy yéene jàmm toujours di ko ko ñaanal ndax donte que làmb boole woon na ko ak ambulance mais ambulance rek la bëgg moom Abdoulaye Sène ba tax na may ñaanal armée ci combat bi mu dugg yàlla na ko ci yàlla may ndam yàlla may ñu dam ndax ñaanal ko nag du tere sunu combat dafa war a leer day am ndam ñu ñaanal gi yëpp bëgg a ak moom leeral ndam ñu am ndam ñu leeral ko ñooñu maanaam seen làmb daa war a leer waru waruñoo bare kenn ci làmb ji leeru kii ku ko daan champion nga mbër mu ko daan ci làmb champion nga. kon nag yaa na macha allah kon yàlla na jëm kanam. loo ciy yokk li Pape li Pape wax. <laughs> waaw li Pape li ma siy yokk moom bariwul parce que boo xoolee semaine bi daanaka semaine bi laa tàmbalee entraîné kon ni nga ko waxee rek nga naan ay boo ma gisee di nga xam man mi feebaruma boo laajee Thiès fii. laaj ñoom Modou Anta ñoom ñëpp dina la xam ne carrément dina la wax ne kii daa feebar. tey Modou Anta moom li nga da jeex na kooku sama doomu day la. mais yéen ñaar yéen a bokkoon écurie n'est-ce ñoo bokkoon léegi lu tax ngeen séparé wu. non du question xam nga lan la ñun ñëpp sama mag la. saa ngi dégg amu ci amoon na ci concurrence amoon na yàlla xam na ni man mosuma concurrence ak Modou Anta c'est yi si ginnaaw ñooy wax rek. ah ñuy wax. voilà gis na làmb ji. ku nekk mën ngaa lekk li ngay lekk doo gaañ sa morom làmb ji dafa rëy. mais boole woon def ko benn écrit est-ce que du ngeen ëpp doole. waaw séparé écrit ñaari Cees mbooloo ak jeex na ñoo yem. ñoo yem rek. yaa ngi ko gis muy bari moo di ante ñëw andi ko. mais ñun benn bopp lañu. laay goote mën naa laa waatal ni fi mu toll ci Matar ak fi mu toll ci moo di ante benn la su kii di bëri du ànd ak sagoom. c'est laay goote kat ne wuli déw mi ko daan sax la bëgg a jël ndax fañ mer. nee naa la kon moo lay wan ni la ñoom ñun benn lañu. kii nag ay adversaire am ñu ngi ci làmb ji. si si si ñàkk jariñu adversaire am la Alioune Seye adversaire am la. métti gracier nañ leen baal nañ leen. Eh, nu mu tuddati ay magam a ngi fii Issa Pouye ñëw na fii Thiès. Eh, xalaat bu ñëwee Thiès. di menacer ay Modou Anta Modou Anta taxu koo wax ndax am na combat. bu mu kon xul ambulance. message Modou Anta nee ko rakki Modou Anta ngi fii fii ku soxla Modou Anta te mënoo ci ambulance ngay bëri. mbërum Dakar day dem Dakar waxuma la sax kase bañ koy fay mais salle de musculation mag léppam dañ ko koy jëlal. ñun fii waxuma la li ngay lekk ak la sa njaboot di lekk ba ba ngay bëri ci lépp ci sa kase bi ngay bëri ci lay génn mbëri bu ñu daanoo looloo leen daaneel amuñu kenn ku leen teg loxo amuñu kenn ku leen jàppale. ambulance waaw ñëpp laay woo ambulance bu amee combat lu mat sept car ngay luyee wala huit bu ci ne fukki junni ko koy fay muy quatre cent mille boo ko jëndee woon ko di di ko yóbbu amuñu kenn kuñ ci jàppale muy Modou Anta bi soo gisee xale yi année blanche loolu la parce que benn adversaire bu nekk ci dëkk bi boo mos benn mbër boo seeti ñaari baat bu waxee ñaari baat ñett dina tudd ambulance wala mu tudd Modou Anta mais lan mooy sunu problème ku ñu jàppale. kon ne autorités yi teg loxo seen doomi dëkk yii ñu am bala ñu leen utiliser rek politique jot campagne électorale jot ñu utiliser sunu boy yi bañ pare sunu pare dem toog seen yoon loolu nag ñun jóg nañ ci te loolu dootu fi amati. te tey ji li ma ci gën a naqari day sunu média yi nga am ci sunu dëkk bii ñun. loolu mooy li ma gën a naqarlu ñoo ñu war na tiitaroo suñ doomu Thiès yi dañuy invité ay mbëri jëlee leen ba Dakar indi leen Thiès di leen fay ab xaalis invité champion bu mel ni Mod Mod loo par exemple Ama Balde fii lañ leen indi ci ay télé di leen fay xaalis pour ñu def émission. maa la wax lii man Pape te mbër yi nekk ci dëkk bi duñ leen invité seen plateau yi jox leen sax juróomi junni booy déplacé Issa Pouye di ko jox cent mille francs pour mu ñëw def émission fii wala nga koy defal Mod Lo loolu yëfi nit la man la boobu média du média dara man maa ko wax. ñun nag nit la ñoo xamante gis nga lu ñu soxla man nañ koo am ban koy am boobu média amul ba tax na tey ji lépp lu ñu soxla woo tamit nii ngeen defal ñu tey ji dafay lu rafet yéen ngi jógee ba Dakar ñëw di seeti champion bu tal ni ambulance ay site ngi ci bi kan moo ci jógagum woo ma ni ma damaa bëgg ñëw jël si ambulance ba xam fan la toll ci saison bi ndax ñi am nañ combat amul combat te pourtant seen domaine la woon ñoom ñoo ko waroon njëkk a def kon tey boo demee ci seen kilifa ne ko ñu ngi koy sant di ko ñaanal Aline Badara nekk ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax lépp loo nga xamante ne rek lu mu yéene la ci système bi ak lu mu ci bëgg yàlla na ko yàlla sama borom defal am nañ ci mbégte bu baax a baax tey nag boo gisee ñu indi ko fii dañoo nekk ak suñu kii magu ambulance la ndax mag la ci Modou Anta moo nekkandoo nag mu bëreendoo ak ñoom takkandoo ñoom gemb ba bàyyi muy Maju Dieng di grand champion. kaddu bu mujj mooy maa ngi sant maa ngi sant <laughs> maa ngi leen. maa ngi leen bu baax. di sant sama seex yi Ousseynou ak Assane waaw di waaw ñooñu nga xam ne fu ñu fu ma nekk fu ne ñoo nga fa mhm. dañoo liggéey nii moo tax ak ñoom Fira ak yooyu yëpp sama gars yi ñoom ñëpp mhm. yaa ngi di sant sama gars yi nga xam ni lu ma nekk guddi ma nekk bu ma nekk lu ne ñu ngi si mhm. yaa ngi di sant sama mag yi wala di ko sant bu baax ni ko nag jàppal day neex lu mm, mm, am borom lu ne day neex damaa bëgg mu mu xam loolu si boppam. na koo gis neex naa ci topp. jeex na gëm naa sama bopp te yàlla xam na ni yàlla dina ma si dimbali si kàttanu yàlla. te xale nga làmb ngi na. maa ngi bëggee di bu wér yow tamit <laughs> doolu bëggee bu